lu mu wax nga def ko lu mu la tere nga jëm koo bàyyi. loolu mooy position taalibe bi nga xam ne bi moom la doon def mais suñu ñëw bii ñëw fii tey nag dafa am ñëw boo xam ne bii dafa nekk ñëw bu am solo ndaxte buñ gisee sëñ bi li muy def ci dëkk bi di dimbali nit ñi bu ñu demee ba dëkk bi nekk ci ay coow ak histoire bu mag nekk fi dafa def rôle bi mu waroon a def mooy fexe ba arrêté ko. kon ñun bu ñu nekkee ndakaaru dëkk bi toll foo xam ne fii nit ñëpp dañuy fëgg seen dënn violence bi di fi am ay proportion yoo xam ne yii mi ngi ñuy bugg a jaaxal ñun dañ na woon dañuy def suñu warugar mooy ñëw ci moom sàkku ñaan ci moom wax ko ne ko réewum senegal fii ñu toll ni toll na foo xam ni fii laaj na moom mu teel cee wax balaa ñoo dem ba ay ay di fi am parce que nit ñi ku ci nekk yaa ngi fëgg sa dënn dëkk bi léegi violence am na fi wax naka su noonu mi ngi fii am ñàkki teggin ba tax borom xam-xam yi ñi ngi toog mënatunoo génn di wax ndax de borom xam-xam bu toogee di wax ak koo xam ne kii wax rek la xam bu waxee mu weddi ko ñàkkee ko teggin mu toog ci réew mu mel ni Sénégal xam-xam moo ko mas a yor xam-xam moo ko war a yor kon nag sama devoir la woon ma ñëw ci moom pour wax ko ne ko sëñ bi yow de yaa ngi ñaanal dëkk bi lu nekk yaa ngi ciy def yow li bi mu tàkkee yaa ko fayoon wante nag fi mu toll nii war nga cee waxaat woo ñi nekk ci kujje politique gi wax ak ñoom pour que lii ñu def Sénégal mu am jàmm bi ma ko waxee itam ñëpp gis ne mu rafetlu ko daal ne mu loolu moom lu rafet la bu soob yàlla daan ci taxaw dinañ ci dox beneen bi ci dolleeku mu ne ko sëñ bi réew mi day am mbay moo ko yor say taalibe ña nga nekk ndakaaru nekk fépp di def ay marchand ambulant te itam li daana doxal Sénégal mooy mbay kon nag mën dama ñëwoon di sàkku ci yow nga woo sa taalibe di président Macky Sall nga boole dool ji nga xam ne bi la sëñ Touba am na ku nga xam ne lu ñu yëkkati mu jóg mu ànd ko ak état Sénégal ñu dem jëli ndox mi fële ca fleuve ba jëlee ko ay lac de indi ko mu baawaan ci biir réew mi bañ a nekk ndakaaru njaay génn pour que ñëpp mën a dem liggéey ñu mën a def mbay mi parce que Sénégal mbay moo ko yor ca ndox mi moo ko mën a defar te boo ci jàppee wax ci ak président Macky Sall sa taalibe dinañ mën a jëli ndox mi fële indi ko pour que ñu liggéeye ko loolu bi ma ko waxee sëñ bi rafetlu na ko torop ne ma loolu moom lu war a nekk la kon nag suñu ñëw bii ñu fi ñëw tey